شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء ومن اقتفى آثارهم بكرة وأسيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دقلو حديث دي زور نونجلن دي نيو di leen ziyaara di leen balo xaq di leen baal xaq di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu boole nu jéggal sunu jaamu yépp yàlla na ko sunu borom tabaaraka wa taala nangul sunuy mi rëcc rëcc yàlla na ko sunu borom subhaanahu wa taala jéggal di ñaan sunu borom mu defal nu ak dégg gu ànd akuk topp falilaahi alhamdu wa sukuru xadis bi nu leen di indil tey dafa wax ci siraat ak jéggin ya fay am xam nga ne bokk na ci iimaan mooy gëm yàlla nga gëm ne ëllëg yawmal qiyaamati yàlla dana taxawal jaam ñépp àtte leen nga gëmit ni dangay ngay siraat gëm ne aljana am na gëm ne safara am na gëm peese gi ñuy peese jëf yi al imaanu jazmun bil ilaahi wal kutub wa rusli wal amlaaki maa baasi qaru wa qadarin kaza siraatu miidaan xawdu nabi jannatu wa niiraan loolu borom ibnu Aashir wax ne gëm yàlla imaan gëm yàlla mooy nga dogg ci amug yàlla gi nga dogg ne yàlla am na dogg ne wàccee na ay téere gëm ko gëm gu wér ne wàcce na ay téere la tàmbalee ci maam Adama ba ci Seydina Muhammad mu wàccee ci moom téere bi gën di alxuraan nga gëm malaaka yi gëm dogal yi neex ak yi naqari dogal yi neex ak dogal yi naqari nga gëm ko ah? gëm bis pénc ne am na gëm àjjana gëm safara gëm ne dinañ peese jëfi ëllëg waaye nga gëmaale siraat ne dañ koy jéggi xaddis bi nag tey ci siraat lay wax ak jéggi nii imaamu tabaraani boo demee ci mujamul kabir moo génnee xadis bi ne xadasana ali ibnu abdul aziz xadasana aarim abu nucmaan xadasana xamaad ibnu zayd عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يوضع الصراط على سواء جهنم يوضع الصراط على سواء جهنم يودع الصراط على سواء جهنم على سواء جهنم مثل حد السيف المرهق مرهفي مرهفي مضحضة مذلة عليه كلاليب من نار يخطف بها فممسك يهوي فيها ومصروع ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو ثم كالريح ولا ينشب ذلك أن ينجو ثم كجرع الفرس فرس ثم كسعي الرجل ثم كرم للرجل ثم كمشي الرجل حتى يكون آخرهم إنسانا رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا حتى يدخله الله الجنة بفضل رحمته فيقال له تمنى وصل فيقول أي ربي أتهدأ مني وأنت رب العدة فيقال له تمنى وسل قال حتى إذا انقطعت الأماني قال لك ما سألت مثله معه قال وحدثني أبو صال عن أبي هريرة قال وعشرة أمثاله معه عبد الله بن مسعود نينا عبد الله بن مسعود نينا ëllëg danañ jël siraat teg ko ci kaw jëhannama mu yemoo ca kaw jëhannama ala sawaayi danañ jël siraat ëllëg teg ko ci kaw jëhannam siraat ñaw misla xaddi sayfil murhafi comme ñaw jaasi joo xam ne jaasi taasanqe la guy dagg jaasi taasanqe gu gudd gu ñaw lool lool xadd sayfil murhafi murhaf hmm? moom la tur la mooy jaasi ju ñaw ju gudd juy dagg maam xalifa ñas yàlla na ko yàlla gërëm am na téeréem noonu la tudd tur wa murhaf gi bokk na ci mooy bi mu amee ku ñu wax ibnu maayaaba am kenn ku mu attaqué ci gaayu yàlla yi muy Cheikh Sidi Ahmad Tijani bi mu ko attaqué en tant que nitu yàlla ngay jël sa xalima di bind di ko ŋàññi ci la bindoon téere moom maam Khalifa Niass mu maam Abdoulahi Niass yàlla na yàlla gërëm leen tuddee ko aljuyuusu tula bil murhafatil quta ilab ni maa yaaba axi tana ton waaw al juyuusul tula mooy lël mbooloom soldaar yu fenk bil murhafatil xuta yor jaas yuy dagg baat boobu rek lañ ci soxla murhafaat jaas yuy dagg yenent bi mu ne siraat siraat siraat dafa ñaw ba mel ne jaasi ju ñaw lool mën a dagg madhadatun madilla siraat madhadatun madhadatun madhada boo demee ci firikat yi ñu ne mooy ay madilla yuqaalu daxadda rajulu ida dalla qadamahu ñu ne madhada mooy tarxiisal na ko des na wax ne nit ki nit ki bu tarxiisee daanu ñu ne daxada rajulu diw de tarxiis na daanu danañuy wax tamit nit bu fekkee da ngeen di werante ku nekk indi ay argument ba yow nga ëppale koy argument ñu ne daaneel na ko ñu ne daaneel na ko kon madxada siraat dafa fàbbiwaate Latun di tarxiisalaate daf lay am na ñoo xam ne dañ siraat da leen di fab bi ñu daanu ci biir tarxiis rëcc wadd ci biir siraat alayhi wër na siraat nekk na ca siraat kalaalibun min naarin ay feeru weñ weñ kalaalib mooy ay feeru weñ ay weer yoo xam ne feeru weñ sax moom neexul a dégg <laughs> ay weñ yoo xam ne safara la laa la bëgg a wax ay feeru safara weñu safara ay weñ yoo xam ne safara la yuxtafu biha am na ñoo xam ne weñ yooyu moo leen di fëkk jàpp leen lonku leen fa yum sakku wii fiiha mu téye leen ba nu dëgër tàbbal leen ci biir jëhannam am na ñoo xam ne bu ñuy jéggi siraat siraat dafa am ay weñ yoo xam ne dafa li siraat di ñaw ñaw ñaw ñaw nga war ko jéggi sew sew bañ mel ne cunkóoru fas cunqóoru fas muy kawaru fas mooy lañuy wax cunkóor cunqóoru fas noonu mu tuutee noonu la siraat tuute boole ko ñaw nii ba mel ni jaasi dafa am yeneen yeneeni mbir yu nekk ci siraat mooy ay feer feeru safara yoo xam ne am na ñoo xam ne dañuy jéggi ba mu yàgg de mu ne leen ñiib tee lonku leen dugal leen ci biir jahannam wa masruun am na ñoo xam ne dañuy nërmeelu ca siraat lañuy ñuy waddeere mel ne ku daanu gaa ngiri rek wodd ci suuf wa minhum man yamurru kal barqi falaa yanshabu daaka an ju mu ne am na koo xam ne nii dafay jéggi siraat ba mel ni melax falaa yanshab yanshub ci boroom xam-xamu luxa yi wax nañ ci ay wax nee nañ arab léeg mu ne nasabar xarbu baynal qawm maanaam guerre bi na jëmmarloo bi am ci diggante ay nit léeg mu ne nasaba shay'u fi shay mooy alaqa bihi dara taq na ci dara moy nasaba shay'u fi shay'i léeg-léeg arab wax ko lum ci jublu mooy dara taq na ci dara dara taq na ci dara léeg mu ne nasaba mansaba manshaba su'in ay waqaa fii ma la najaata minhu léeg-léeg mu ne mu ne nasaba suu su'in mooy dugg na ci loo xam ne mënoo mënu cee mucc mënu cee mucc mënu cee mucc loolu yépp ak yeneeni firin yu bari indi nañ ko ci baatu yanshab kon man nga ne wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne yamurru dafa jéggi kal barqi mel ne melax falaa yanshabu falaa yanshabu falaa yanshabu zaaka an yanjuwa falaa yan sa bu kon du du taq zaaka kooku an yan jiwa mu mucc du taq moom kooku di jéggi siraat mu mucc léeg tamit ñu ne yan sab baat bi dafa firi tàkk lakk lakk lakk waqaa nashiba xariqun ishtaal la léeg mu firi tàkk na akay baat boobul sax mooy gën a dëppoog nga xam ne kon siraat mi ngi ci jëhannam nga ne kon kooku di jéggi dana jéggi siraat falaa yan shabba falaa yan shabbu du tàkk du lakk zaaka kooku an yan joobam mucc dana jéggi siraat dara du ko lakk ci sawara ba mucc ba romb dem falaa yan shabbu zaaka an yan juwa xam nga nee na la ku njëkk gi dafaa jéggi siraat tarxiis daanu jahannama lakk ko am kuy jéggi siraat feer yi weñu safara yi lu mel ni ay lonk comme ay sartu sartu yi ñuy daggee ñax ñi xam sartu yi ñuy daggee ñax noonu lay mel daf laa lonk nga dugg ci biir nga dugg ci biir noonu la lay jàppee comme yenn caterpillar yi nga xam ni da ngay gis ñu lemu gas suuf si xëcc ko génnee sànni am na ñoo xam ne tamit noonu la leen weñ ñi nekk ci siraat di lonkee dugal leen ci biir jahannam waaye am na koo xam ne dafay jéggi mel ne lax melax dara ci moom du lakk fu ma kër riixi topp koo xam ne dafaa jéggi mel ni ngelaw wala yéen sabu bu daaka an yéen juwa kooku tamit dara du lakk ci moom ba mucc fu ma jar yil faras yi am koo xam ne comme doxuk fas la comme doxuk fas ni fas di dawee am na koo xam ne nii ni fas di dawee noonu lay gaawee ci siraat xam nga di ngay dégg ci sunuy ñaan ñu naan ñu jéggi siraat gën a gaaw melax waa kay gën a gaaw melax moom la ñu ci wax ne am na kuy jéggi ba gën a gaaw lax dara du lakk ci moom moo tax ñu koy boole ci sunuy ñaan léeg bu nuy ñaan ci jataayu lislaam beeg yooyu ñu naan ñu jéggi siraat gën a gaaw melax am na koo xam ne comme fas ni fas di dawee xam nga fas gaaw na mais gaawul gaaw na gaawul gaaw na am na waruwaay gën a gaaw gaawul am na ay mbindeef ay rab yu ko gën a gaaw am na tamit yeneen i dawkat yu am ñeenti tànk yu ko gën a gaaw summa ka sa'yi rajuli am na koo xam ne day jéggi siraat comme ni nit booy dox simple nii di dox ndànk ndànk ndànk ndànk di dox am na koo xam ne buy jéggi siraat noonu lay mel sa'yi rajuli saa yi rajuli am na koo xam ne comme doxu jenn waay la juy dox buy jéggi siraat nga xam ne nii doxoo ndànk mais waaxu woo tamit mais da ngay dox dox bu simple am na koo xam ne noonu lay jéggee siraat fu ma karrama li rajuli am na koo xam ne ni muy jéggee siraat comme ñukku genn waay la ci yéen ñukk ñukk mooy dox boo xam ne nii dawoo ay xël waaxu weesu nga waaxu dawoo ay xël yaa ngi ci diggante bi mooy comme booy wër kaaba gi noonu ngay dawee ñukk diggante safa mar wa noonu nga koy dawee loolu mooy ñukk ñukk summa ka mashi rajuli am na koo xam ne dafa dax dox comme doxu jenn waay comme doxu jenn waay kon saa yi rajuli da nga koy fiire waaxu am na koo xam ne nii comme kuy waaxu ni muy waaxoo noonu noonu lay jéggee silaat am koo xam ne nii ni muy jéggee siraat comme jenn waay juy ñukk am koo xam ne ni muy jéggee siraat comme jenn waay juy dox dox bu simple rek mooy saa yu rajuli xataa yëkkuuna ba mu nekk aaxiruhum ki mujj ci ñoom nekk ca ginnaaw kooku insaanan jenn waay rajulun waaye lay doon joo xam ni xat lawaxathu naar safara àllawtiku na ko safara àllawtiku na ko safara lakk na yaram bi yëpp fulli yaram wi yëpp xolli yaram wi yëpp wala qiya fiha sharra mu dajee ci sawara xay mu dajee ci sawara xay hmm? nga xam ne bi muy jéggi siraat safara mi ngi koy ñoral di di di ko laaw wi di laaw wi der wi di laaw der wi loolu wolof naan xëñ ji xëñ ji mooy bu bu yàpp euh, jegee safara noonu muy def bu yàggee tàmbalee soppeeku tàmbalee soppeeku kooku tamit noonu yàpp di xëñjee ci wetu safara wala nit ku jege safara ba mu yàgg mu tàmbali ko gàllankoor kooku noonu lay mel Seydina Muhammad ne kooku xataa yudxilahu wala Abdullah ibn Mas'ud ne kooku xataa yudxilahu llahu na ba yàlla dugal ko àjjana bi fadli rahmati ci ngëneelu yërmandeem suñ borom bu ko dugalee àjjana lan la koy wax fa yuqaalu lahu mu ne ko tamanna mébétal wasal nga laaj waxal li nga bëgg waxal li nga bëgg waxal li nga bëgg tamanna wasal mébétal wax li nga bëgg nga laaj wax li nga bëgg fa yaquulu mu daal di wax ne ay rabbi ay yow suñu borom atahdau min nii ndax danga may yéej ji ndax danga may ñaawal ndax danga may yéej ji ndax danga may ñaawal man lii nii ma mel nii ni ma safara def nii ma ñëw ngaan ma waxal li nga bëgg suñ borom tontuwu ko lan la koy waxaat te mën na wasal ñu ne ko hey mébétal wax li nga bëgg ta nga laaj mu ne yàlla xataa idan qataatil amaani mbooleem lu mébét ka di mébét rek ba mu jeex tàkk mébét naa ko mboolem lu gaa ñi mébét bëgg ko ba mu jeex tàkk tàkk mébét naa loolu maanaam daal lu gaa ñi mot laa laaj yépp ne defal leen ko man jeexal naa ko jox ma lépp am na ko ñëw naan lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg jeexal kenn lee laa bëgg lee laa bëgg lee laa bëgg am na lu bëgg ñaareel ki ku ñaareel ki loo xam ne ku ñetteel ki laaju ko woon daf ko fàtte woon mu ne ko man nag du ma fi nekk naa ne lii laa bëgg muy des lii la gaañ ñi mos a laaj yëpp daal jox ma ko atan <laughs> idan qataatil amaani suñ borom ci mbaaxam subhaanahu wa taala borom tur yu yëkkatiku yeeg melokaan yu rafet yi ne ko maa altemis mislahu maa li nga laaj yëpp ne mébédi ba mébédi mébédi jeex jox naa la ko ba joxaat la lu toll noonu hmm? juri yi ne ba tey abu saal nee nañu jële ci abi hurayra suñ boroom nee na foofu ci ahadisu abi xurayra bi daf ne ko wa asratu amsalihima ak juróomeelu juróomeelu kemu lig ma fukkeelu fukkeelu kemu lig ma laaj jox naa la ko maanaam bi gaañi laajee ba jeexal ma jox la liñ laaj yëpp joxaat la fukk yu tolloog li ñooñu li gaañëb laaj nga xam ne yàlla rek a baax nga xam ne suñ boroom rek a baax kon mbokk yi xadis boobu noonu le xadis bu raglu la xadis la yi tamit bu mata bàyyi xel waaw xadis bu raglu la xadis bu mata bàyyi xel la lu ko wax ne buy jéggi siraat siraat daf ko lonk dugal ko ci biiram am na koo xam ne buy jéggi siraat dafa nërmeelu daanu ci biiram am na koo xam ne buy jéggi siraat mooy gën a gaaw melax dara du ko laal ci xeetu lakk-lakk safara ya am na koo xam ne buy jéggi siraat day mel ne melax kii mel ne ngelaw am koo xam ne buy jéggi siraat day mel ne fasu naaru góor buy daw am koo xam ne buy jéggi siraat day mel ne kuy waaxu góor guy waaxu am koo xam ne buy jéggi siraat daa mel ne ponkal muy ñukk di xaw a daw am koo xam ne buy jéggi siraat day mel ne kuy dox dox bu yem ba ki mujjee dugg ki mujjee génn ki mujjee jéggi siraat sawara daf koy àllawtiku lakk ko bu daja faak xay suñ borom nag ci mbaaxam mu yërëm ko ne ko laajal li nga bëgg mu ne ko ndax dag may ñaawal mu ne ko déedéet waaw ndax dag may ñaawal suñ borom ne ko laajal rek nga bëgg mu ne ko lu gaañ ñi mos a laaj yëpp mos koo mébét jox ma lépp suñ borom ne ko jox naa la lu tool noonu ah abi hurayra riwaayam ne ko ne daf ne fukk yu tool noonu xadis boobu noonu le imam haysami génn na ko ci majmau dawaayit wa man boxul fawaayit nee na góoru xadis bi yëpp wér na ba mu des kuñ wax asim te ku wóor la kon xadis bi xadis bu wér la imam mundiri ci at targhib wa tarhib ne xadis bi xadis bu rafet wéeruwaay la Euh, alhaysami almakki ca azawajir moom itamit nee na xaddis bi xaddis bu rafet wéeruwaay la Cheikh Albani ci sayu tarxib ne xaddis bi wér na ci beneen riwaaya bu dul bu Abdullah ibn Mas'ud kon xaddisu tay baa ngi noonu le ci siraat lay wax yàlla ñu yàlla musal ci siraat buñ koy jéggi daal na nu gën a gaaw melax ndax nag mënu la ñàkk ñu jéggi ko il faut balaa kenn dem àjjana da nga traversé siraat mooy pont bi nga xam ni. tabaarakallaahu moom lañ gàll ci kaw jëhannama nga xam ne moom nga mën a traversé dem aljana bu la yàlla yërëmee bu la yërëmul yàlla ñu si yàlla musal nga waddee ca pont ba dugg ci biir kàmbu jëhannam yàlla ñu si yàlla musal yàlla ñu si yàlla musal yàlla ñu si yàlla musal yàlla ñu yàlla musal ci daanu ci jëhannam yàlla ñu jéggi siraat gën a gaaw melax dugg àjjana lii na dëkkandoo fa ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu soppee wax lii moo nekkoon seen xadis ak seen mbokk oustaz Makhtar Sarr du ndëkkub dëkkuwaay waruwaaye koddaay yal na yàlla yombalal nu ko may ñu fan gudd wu ànd ak wér gi yaram defal nu mujj gu rafet bu ñemee ba koy wuy ji ñu yóbbaale kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba subaa jàmm insha allahu taala ñu indi leen beneen xadis asalaamu aleykum wa rahmatullahi وبركاته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين